environnement laay wax parce que bu ñu gisee effort yi ñu def yëpp mais nit ñi il faut que ñu am des comportements euh, des comportements républicain nga xam ne doo ñëw jël benn sa benn salté tekk si mbedd mi man loolu lay déplorer actuellement donc il faut que ñu def attention euh, xam ne euh, dëkk bi ñun ñoo ko mën defar ñu ngi waslu ak ñu ngi jeunesse bi effectivement ñoom ñoo ñu ñoo ñu yor ñoo yor dëkk bi jeunesse bi lañu la ñu yaakaar parce que jeunesse bi c'est les bras jeunesse bi lañ yaakaar donc il faut que jeunesse am une bonne formation te euh, ñu ñu ñu muñ aussi parce que euh, nit ñi il faut ñu muñ et puis am persévérance boo yàkkamtee rek doo doo doo doo da ngay am problème donc persévérance boobu laay wax nit ñi ñu ñu gën a ñu gën a bàyyi xel euh, ku commencé benn affaire bul xalaat ne da ngay avancer rek suba mu sotti donc ça veut dire que xaalis boobu barkeelul donc foog xaalis bu bu barkeel il faut que euh, euh, euh, nit ñi def attention si li ñuy li ñuy gagné mu lew leen. te jeunesse bi occasion la ñu borom bi tabaraka wa taala jox pour ñu mën a adressé ay ay jàngat yoo xamante ne askan wi ñoo koy moom rawatina rawatina jeunesse bi.